di soññewaat ñi nga xam ne yàlla dogal na ñuy indi yére yi mm. eh, bépp yére booy indi rek na nekk loo xam ne ku la ko joxoon comme ni ma ko waxee sama biir kàddu rek ku la sëñ Muntaxa woon ne la soxla si ma te solal gën a fonk ko bu boobaa moom nga yëkkati sol boo dee joxe na nga dalaa digal boo dee joxe nga joxe li nga gën a bëgg mm. te li kii boo dee jox sa moroom jullit sa mbokkum taalibe mu yaakaar Sëriñ Tuubaa li ngay joxe koy joxe te Serigne Touba nag kenn du ko jox loo xam ne euh, boo boo àggee ci moom tamit kenn du ko mën a jëriñoo. Mm-hmm. kon loolu ñu ciy soññaa ñu ci des li nga xam ne nag moom laay soññu mbokk yi sama mbokki taalibe yi nga xam ne ñun ay taalibe leen ñu sax ci ak taalibe gën a yeesal seen i pas-pas seen diggante ak Serigne Touba ndax euh, euh, ak ndaw mooy li gën a am solo ci dundu doomu aadama ndax yàlla sax boo ko dee jaamu li gën a soxla ci jaamu nga mooy nga jaamu ko ci sa ak ndaw. te dañuy faral di wax ne nit ki doomu aadama lépp loo xam ni def na ko ci ak ndawam euh, mu nekk loo xam ne lu baax la du nekk pertement waaye bu demee ba nekk ci ak magam bëgg koo def tamit loolu mën naa nekk loo xam day jafe te yàlla boo ko jaamu ci sa ndaw dem ba àgg ci sa mag bëgg koo jaamu tamit day mel ni da ngaa dem ba jaaxle xamatoo foo jëm bëgg a dellu ci moom hmm. kon ñu ngi soon ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi euh, te yàlla dogal dëkk bi nga xam ne mooy Touba nekk dëkk boo xam ne euh, la Serigne Touba bëggoon di ñaan boroomam dëkk bi mel ni Makka ak Madina loolu lam lu ñaan la waaye la koy jëmbal nag mooy ñu ñu fi nekk. Hmm. ndax damaa jàpp ne la nga xam ne moo jëlee raay ba euh, jaareem andi ko tuubaa am na solo am na solo lool. ñu doon yenn carrière ba ndokk indi ko ci jumaa ji am na solo lool waaye ndax ñun dañuy téye loolu di ko ndamoo di ko wax rek muy des ci suñu dund. déedéet nit ki dafa war a fexe ba ci àddunaam lépp lu mu jamonoonteel ci àddunaam mu fexe ba nekk loo xam ne la ko war mu def ko. mooy Touba ka kanam nag mooy liggéeyal yàlla ci jaam yàlla yi te loolu lu yomb la loo xam ne eh, li ko sëñ Mbàkke ja waxee léegi rek yàlla képp koo xam ni jox na la da laa séddale loo te doomu adama lépp lu am rek ci coobare yi suñu borom la ko amee mm-hmm. loolu mi nga xam ne da laa jox loo xam ne xañ na ko sa morom defuloo yàlla lu tax mu jox la ko waaye ki ko xañ tamit deful yàlla lu tax mu xañ ko ko mm-hmm. kon bu la defalee loo xam ne defulu ko sa morom nga am koo xam ne te ne ko mën ngaa joxe eh, yàlla jox dénk na lu ëpp la loo mën a dépassé lu ëpp tey fexeel ba la nga xam ne moom nga am ci la ëpp nga ko mën koo génn di ci dimbalee ñi nga xam ne ñoom nga tane mm-hmm. daal ñu ciy soññi ci liggéey bi nga xam ne mooy commission sociale kañ ngeen ko war a commencé euh, euh, joxe bi joxe bi ñu ngi koy commencé le 10 incha allah mm-hmm. euh, lancement cérémonie bi ñu ngi koy defee comme magasin boobu nga xam ne moo nekk Guédé mm-hmm. jàkkaarloog télé bi nga xam ne moo jëm baax en face foofu la koy defee incha allah buñ jógee ci loolu tamit dinañ jël ay oto yu baree bari comme ni ñu ko waxee léegi dem ci sancaan yi nga xam ne ñoo ko yeyoo euh, ñu jox yebal mbooloo bi ñu dem foofu séddale ko kenn ku ci ne ñu jox li benn mbuus boo xam ne dinañ ci def fukki yére. Mm-hmm. fukki yére yi tamit dina am yére xale dina am yére jigéen dina am yére mag. Mm-hmm. dinañ ci def dàll ay takkaay sax dinañ ko def ci biir ci mm-hmm. gi. ngir jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo. nga xam ne nag commission sociale tamit xaalisam. ni ma koy leeral woon léegi léegi nekkut xaalis boo xam ne. day jóge ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la mbokki taalibe yi di barkeeloo ci reçu Touba ci kanam mm-hmm. loolu tamit dañ koy leeral te xam ne ji nga xam ne suñ commission sociale Touba ci kanam mu ngi koy def maanaam bu señoon dina am yéen def lu ëpp li def waaye du xaar dara loo xam ne war na koo def te fépp foo xam ne nii mën na faa jaar ngeen a am xaalis tamit dina fa jaar ngir am xaalis ngir delloo ko ci ñi nga xam ne ñooy néew di doole loolu tamit xam yàlla dogal na Euh, ñu dégg commission sociale ba pare bokk ci commission sociale ñu fexe ba euh, mën a mën a mën a jël seen ndimbal di ko jàllale ci commission sociale sociale tamit am na benn numéro boo xam ne lépp loo xam ne euh, moom nga ko faa jàllale mu am na am na Wave muy 914 26 68. numéro boobu mooy numéro commission sociale lépp loo xam te ni jàllale ko ko fa moo xam Wave la wala Orange Money xeebuñu dara loo xam ne def ko ko loo ko fa def tamit ginnaaw bu la laajee li nga ne mën nga ko dinañ la defal foo xam ne xam nga ko te nekk na loo xam ne yaa ngi koy xool ci image di ko gis. Hmm. kenn ku ne umpaliwut Touba ku fi nekk umpaliwut commission sociale Touba ci kanam lan mooy activité am ci biir Touba. Hmm. moo xam ne wala orange mën a boo ko jàllalee ci numéro boobu commission sociale dina ci jot. commission sociale tamit li ma ko leer laay leerawaale ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy barkeelal Touba ci kanam bokkut ak li nga xam ne moom la commission sociale jël di ko def ci. te néew ji doole yi loolu nag mbo mbokki taalibe ñooy jaayante kenn ku ne la nga am joxe ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa la nga man ginnaaw boo jaayantee ci commission sociale ba pare ci Tuubaa ci kanam ba pare nga xool la nga man moo xam mu bëri mu néew nga barkeeloo ko ci commission sociale bi defal ko ci néew ji doole